àllana nabi nag mooy loo xamante ni nee naa la nit ki mënu koo def mukk mukk ci addunaam ñu di ko yërëm suñ tubaa wax na ci masalikul jinaan ni njëriñul salaatu ala bi boo ko jëloon muy ci àdduna ak alaxira di ko wax nee na du tax nga jeexal njëriñ yi alaaji paap salaatu ala nabi képp koo xamante ni nii doom jafe na la doom mm-hmm. nga xamante ne moo xam góor gi moo feebar moo xam jigéen gi moo feebar mais def salaatu ala nabi ba pare waaye tiflit boobu muy nekk ci gémmiñam mhm. jamono ji muy def salaatu ala nabi bi na koy wan na maanaam euh, tiflit bi mu koy wan waaw na koy wan na ndax ndax nu baal ma ci waxin bi ñu baal ma rek mhm. mais euh, dañ koy wax am na sama benn kóllëre boo xam ne dañ ne ko mhm. li tax loo am doom mooy sa sa ndox moo oyof moo oyof waa léegi moo tax mënuloo am doom waaw léegi nag nay def salaatu ala nabi bi bu fekkee ni ndox bi moo woyof mhm. mu jël euh, petit cola boole kook sungufu ñam bi ak euh, ak euh, ceeb ceeb déglu leen waaw ceeb petit cola waaw petit cola sungufu ñam bi sungufu ñam bi ak ceeb bii nii waaw ceeb boo xam dañ koo sebet ba pare waaw dëbb ko maanaam loolu mu boole ko di ko lekk bu incha allahu bi bu fekkee ni mën nii bu oyof la. waaw sunu borom dana dana dana dana dana ko dana ko saafara. boobu moom jarul boole boobu jarul nga koy booleeg dara. waaye salaatu ala nabi bi moom. waaw moom dee ko dee ko dee ko dee ko def. di ko wanaasu di wan di wanaasu di wanaasu.